billahi min charri shaytaani llaini rajim wala hawla wala quwwata illa billahi alali alazim wa sallallahu ala ashrafi alxalqi sayyidi almursalina wa ala alihi wa ashaabihi alxurri almayamin wa man ittabiahum bi hudaahum ila yawmi ddin bokki jullit yu tedd yi nga xam ne yéen a ngi topp suñu jataay fu ñu toll ñun ñëpp ku nekk ci turam ak santam di jox ku ne wàccuwaay ba moom di yàlla weeru koor wi nga xam ne sumboon nañ ko ak bismillahi rahmaani rahim ñu ñaan yàlla sunu borom bi subhaanahu wa taala mu kartanal nu ba fukki fan yu mujj yi ci des ñu mottali ko ak sunu sago ñu ngi nag ci fukki fan yi nga xam ne moo mujj mbokk yi wala sax boog ci wërngal bu mujj bi nga xam ne yu baax yëpp ci la ko yàlla diigal muy fukki fan yoo xam ne ci la jullit ñépp di gore ca safara yal nañu ci yàlla boole euh, mbokk yi nag di fukki fan yoo xam ne bu musaana jot yonent bi sallallahu alayhi wa daana gedd këram gedd lalam gedd ay soxnaam mboolem lu daan taaral nit yonent bi daana gedd lépp farewoo boppam ca jàkka ja nekk foofa di jaamu yàlla sunu borom bi subhaanahu wa taala waaye lépp nag ci mbaaxam rekk la ko def ndax koo xam ne yàlla joxañ na la baaraam ne la jéggal naa la sa bàkkaar yu njëkk ak yu mujj ba noppi nga sonnee noonu ci jaamu yàlla xante wo yiw am na looy jàngal ñi topp ci sa kaw kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam liñ ciy dégg rek mooy euh, daf doon jàngal saxaaba yi jàngalaale ñu ñun ñi nga xam ni ñi ngi ñëw ci gannaaw naka lañuy ñuy fuugloo yàlla waaye it naka lañuy ñuy fàggoo aw yiw di fukki fan yoo xam ne ci la yàlla diigal laylatul xadr nga xam ne xayrun min alfi shahrin gën na junniy weer junniy weer nag boroom xam-xam yi dañu ne boo ko calculer mi ngi nekk quatre vingt yu teg six mois mooy junniy weer nga am ci biir fukki fan yi génn guddi gu remplacer loolu mbokk yi loolu foor na di guddi goo xam ne bu jotee yàlla ci lay wàcce malaayika yépp ñu fees dell ci kaw suuf si ci lay yebalit sayyidina jibril alayhi salaam mu ànd ak ñoom ñu di ci wàcc yërmande yàlla ji li ko dale fi jant bi suuxe ba fi fajar di xare jibril doog a runju malaaka yi yëkkati leen ne leen arrahil arrahil jóg leen dem jot na yonent bi sallallahu alayhi wa nee na guddi googu ko xamoon li ci nekk ci xéewal nee na boo doon fekk sa waa kër ñu tëdd di nelaw nga sotti leen ndox mu sedd ngir ñu jóg barkeeloo guddi gi sax danga ko def daana ci dénkit sayyidatuna Aïcha radiyallahu anha ay baat ne ko nanga ko ci faral di wax mooy allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni yow yàlla daal buur bu tedd nga ab jéggalaa kon nga maa ngi lay ñaan nga jéggal ma man sa jaam bu xeebu bi yonent bi daana ko sax sayyidatuna Aïcha lu bare bare bare bari loolu lépp am njàngale la woon pour ñun ñu mën ko fuglu laylatu xadr nag yonent bi mu bañee ñu sonn def ne ñu xarraw laylatal xadri bi asril awaaxiri fi ramadan bi mu bañee ñu sonn def ne ñu wër leen laylatul xadr ci fukki fan yi mujj ci weeru koor loolu lu ñu ci mën a jànge mooy lu ñu lay seetloo dañoo xamul fu mu nekk te ñuy bañ mu échappé la ñu ne la làmb ko ci fukki fan yi waaye ci fan yu tool yi fan yu tool yi mu ngi tàmbalee ci ñaar fukkeelu fan ak benn boo demee ci mazhabu ahlul bayt sunu mbokk chia yi ñoom ci lañu koy seet guddi ñaar fukki fan ba seddi ñaar fukk ak benn ñoom ci la ñuy laylatul xadr ah, nga dem ci ñeneen ci suñu mbokk sunnit ñoom ñu ngi koy seet ci guddi ñaar fan ak juróom-ñaar nga dem ci ñeneen ak ñeneen ñii ñu ngi koy seet ci ñaar fukki fan ak ñett ñii di ko seet ci ñaar fukk ak juróom waaye it ñii di ko seet ci ñaar fukk ak juróom-ñett waaye loo ci mën a dégg rek mooy bëgg a fàggu yiw ak bañ bés bi rëcc la moo yóbbi nit ñi seet gu metti googu ak yiw wi ci yàlla nekk yiw wi ci yàlla dëxëñ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax di bu malaayika yi wàcce danañu indaale message u seen boroom message bi lan la mooy danañu xool jullit bu nekk bëtu yërmande waaye ba mu des ñetti jullit képp ñoo ci dul bokk ñetti jullit yooyu mooy koo xam ne say wayjur dañu kontaanul ci yow wala ki nga xam ne dafa taqoo naan sàngara rekk bañ ko bàyyi wala ki nga xam ne dafa dog ak bokkam dog ak bokkam nag jullit ñu noonoo sax ci lañ bokk moo tax ñuy bëgg bis bi bu jotee ñépp baalonte ci àq fóotaat xol yi ba mu set laabalaat ko defaraat palaas yi fas naa joxaat yàlla sunu bopp subhaanahu wa taala ñaan ko ci njéggal ñaan ko ci gore ca safara lu waay mën ci naafila nga def ko doontele ñaari ràkk la sax yàlla dana la ci bindul tuyaaba joo xam ne kenn xamul nu mu toll mbokk yi ah loolu mooy laylatul xadr mbokk yi ñu ñaan yàlla lu ci nekk ci yiw yàlla nañu ko dabu ñu ñaan yàlla lu ci nekk ci njéggal yàlla nañu ko dabu di ñaan yàlla mu boole ñu ci xaaj bi ko war a teewe déwén wa ma zalika ala allahi bi aziz wa aqulu xawli hada wa astaxfirullaha lii wa lakum mbokk yi foofu la ñuy yemale suñu jataay wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu